waaw mais après après. mais Amady dina wax tey dina wax. waaw waaw ok fay naa leen. oh merci kontaan naa kontaan naa macha allah jërëjëf kontaan naa bëgg naa sama xol seet na macha allah macha allah amiin kontaan naa jërëjëf. Amady tey ngay ngénte sa doom. sa mbokk yi ñëpp ñëw teew euh, ban yëg-yëg nga am ndax gis nañu complicité bi nga xam ne am nga ko ak say mbokk. waaw contentement rek xol bu sedd ak mbëgg la kontaan rek kontaan la ak xol bu sedd bu fi yemoon sax mu neex. ndax lii yàgg na nekk sama mbëbët sama mbëbëtu àdduna yàlla defal ma ko bu fi yemoon sax neex na. mais Amady wax nga ko léegi yàgg naa nekk sa mbëbët ngir nga am doom bu góor tuddee ko Waly Balago Seck lan moo tax tey nga romb fi ñu baree bëri lan nga dund ak Waly Seck ba tax tey nga jël tur tuddee ko ko. waaw ah, parce que cër bi moo ko moom def na ma lu mu deful kenn teg ma fu mu tegul kenn xoolee ma bët bu mu xoolee si ay raxam bu ma amaatoon doom bu sama laa ko tuddee day jeex. doomu góor bu ko woon dayaa amaatoon nii ma defaat ko waali mu nekk waali déw wax dëgg waaw waaw foofu foofu tolluwaay la tolluwaay la daf laa def ni mu deful kenn wax jooju faaw mu leer lan nga bëgg a wax waaw mais loolu wax la xam nga tàmmaleendoo bay fii yegg si fii bu ko neexoon mu fàtte bu ko neexoon mu fàtte ndax yàlla def na def na ko ni mu ko def fa pare bu ko neexoon du ma gëstu mais nee naa la def na def na ma lu mu deful kenn teg ma fu mu tegul kenn tax na ba ñeew ma kenn kuy dox ci kaw suuf waaye tax na ba ñeew ma kenn kuy dox ci kaw suuf kon donc sant yàlla nee naa la bu ma amaatoon doom bu góor moom lay tudd Wally 2 Wally 1 ngi nii 2 ngi ñëw gis nañu seen complicité yow ak Wally Ballago Seck Amady wax nga ko teg na la fu mu tegul kenn waaye gis nañu ni li ngay dégg ci ay coow ci sa diggante ak Wally tamit bëri na koo wax mu ne Amady Wally Seck moom la gën a jege xam mais nan ngay dundee que ni dañu dafa am favoritisme boo moom la ñu ne waaw loolu loolu ay wax ay wax ay wax ci wax loolu garaawul ay détails la. non non non non favori non non non non non tout sauf ça. ah waaye fi ma teg la teg ñëpp fi ma teg la waa teg waa Ramadan ñëpp ni ma bëggee la bëggee ñëpp. mais dafa di lépp ci njëlbeen gi la dafa am nu ñu commencé di ko doxee te ba ñuy tàmbali dafa am nu mu demee wax wax waxaat la du ja yoru sama ciy jaaraat waaye dama ne la su ma am fukki doom yu góor cër bi moo ko moom fukki doom yu góor bu ma ko amoon cër bi moo ko moom. bébé Waly ndax bébé bi nga xamante ni judd na tombé na ak li nga xamante ni moom mooy coowal disque d'or euh, turandoom dem na nag fi nga xam ne moom moo di France euh, album bi war a génn incha allah le 6 bi ñu bi ñu dëgmal euh, amul comme ko ñuy di wax. macha allah yal na ko yàlla def ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla defar lépp lépp àndandoo daal di ñëwandoo ci kàttanu Seydina Muhammad te dox yàlla da koy def incha allahu rabbi dina ko am ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee disque d'or rek man tuuti ma disque d'or platine laa yor. ak yeneen ak yeneen i yeneen parce que Wally il est loin de là dayoo weesu la foofu. non jooy naa ba pare rongoñu wat non na ba pare dootuma jooyaat incha allahu rabbi dina ñëw ci kàttum Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waa waa lee fa toll toll tolluwaay wala waa lu mu laal biir wi la waale lu wi la tolluwaay wi ko accompagnement la gunge la rek nee lépp lépp gi la ba léegi damay gunge rek waaw lii la ba léegi da ngay gunge waaw. xamante ni ñu ngi koy wax quand même di wax que ni Wally Ballago Seck jënd na disque d'or bi loolu tamit bokk nga xamante ni ñu bëree bëree bëri ñu ngi nekk lonko Wally Ballago Seck lan ngay wax ci loolu. qu'est-ce que ça veut dire jënd disque d'or kenn mënu ko jënd disque noo ko jëndee kenn mënu ko jënd nañ bàyyi waxu soxor ak bon iñaan loolu baaxul loolu baaxul disque d'or kenn mënu ko jënd. bu ñëw day ñëw nag naturellement ak ni mu war a ñëwee te incha dina ñëw ni mu war a ñëwee ak naturellement liggéey rek am solo Samba ji mi ngi ci mi ngi liggéey mi ngi ko teg fi mu ko war a teg wax yii nag jar ay détails la jarul tontu wala ay déglu déggoo ma de ay jënd jënd loolu mooy lan loolu waxu soxor la loolu waxu soxor la. Wally Seck dégg nañ ci réponse bi mu ci wax moom li mu wax moom moo di ñi ko wax seen xel foofu la toll tubaab kenn mënu koo man ma teg ci ñi ko wax dañoo soxor bon iñaan seen xol yi baaxul ñu bon lañu. ah. lan ngay nga xam ne dem na ngir wuti ji ndam li mooy disque d'or. macha allah mi ngi jëlee non non def li mu war a def liggéey na tëju na liggéey def li mu war a def moom li pare na ci de. faramaare nañ ci des ñu ngi ñu ngi ci voie bi gis nga ne barki dem Fnac seede yi fa nekkoon dèjà li jotoon a génn comme comme à jeex na. waaw waaw la rek te li si jot li si jotagul yàlla baax na waa waalee fa toll. waa léegi waa léegi merci